94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem ki toppal 94 Walf Sénégal seen analyse coranique yi nga xam ne leen koy defal saa nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nan leen manifestation ya commencé na Guy Marius Sagna nga jiitu wala ñoom Moustapha Guirassy topp ci ñëpp a nga ca wala ñoo nga ñaa élection par force élection par force voilà loolu nag euh, la ñu dégg moom la ñu santé euh, nit ñu bari nag wàcc nañ ña nga topp seen ginnaaw xam nga mbooloo mi moom mi ngi commencé bari di ñëw voilà euh, policiers yaa ngi topp seen ginnaaw voilà euh, kon yaakaar naa ne euh, li nga xam ne mooy li gën mooy ñu bàyyi rek ñu def seen manifestation bu paree ñu delluwaat voilà jeex na ba pare yaakaar naa réew mi ñoo ko bokk leneen li ci des tamit mooy nañ jox ñi nga xam ñoo mën a doxal ñu doxal voilà mais manifestation yi daal fi mu toll nii commencé na ñoom Guy Marius ñaa ngi ci kanam di santé voilà naan voilà élection par force élection par force loolu nag xam ngeen ko ndax yàgg ngeen ko dégg euh, ndax yaakaar naa ni euh, fan yi yëpp wala jamono yëpp moom la ñuy santé euh, c'est parce que loolu lan la mooy dañoo bëgg dem élection tànn nañ candidat yi ba pare léegi nañ leen bàyyi nag ñu dem élection bu ko defee nag kile meer gañ voilà Sénégal loolu lañ xam àdduna bi yëpp loolu lañ xamee Sénégal moo tax pour Sénégal dugg ci yenn guute yi du yomb parce que liñ leen xamee loolu lañ leen xamee peuple bi liñ soxla nañ leen bàyyi ñu def loolu loolooy dëgg parce que loolu mooy développement loolu mooy avancement loolu mooy démocratie voilà Sénégal euh, adduna bi yëpp xam nañ ne am na démocratie ba noppi pour mu yàqu du yomb du yomb voilà li ko naroon a yàq nag gis ngeen ko moo tax sénégal yëpp taxaw rek wala pour seen réew kon nag yaakaar naa ni euh, manifestation yaa ngi noonu euh, commencé na voilà ñu ngi dox noonu nit ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk nag voilà Guy Marius Sagna ñaa nga ca kanam voilà policiers yi nag ñu ngi seen ginnaaw voilà dara xewagul nag. voilà kon daal ñu xam ni voilà manifestation yi nga xam ne ni waa f ak yeneen i mouvement yu bari voilà war cee teew Sénégalais yi tamit war a génn teew ci manifestation yi loolu dafay nekk loo xam lu am solo la sunu réew la yaakaar naa lépp réew mi rek moo ci bénéfice lépp réew mi moo ciy gagné ñu ñëpp ay sénégalais lañ kon daal dañoo war a dox doxum ñaxtu.